kon léegi da nga bëgg ne élection locale yi pa yi di ñëw. oui. Hmm? képp koo xam ni taqee nga ci Pastef doo mun nekk maire. waaw xam nga conseil constitutionnel dama ne la ci élection yi. Hmm. su décidé lii. léegi nag lan la loi Sénégal. après ci kaw décision bii ndax suñu continuer waatee ñoom mën nañu amaat seen i activité mais su fekkee ne décidé na lii ma wax saa bu ñu indiwaatee ñoom seen i kayit électoral te conseil constitutionnel war koo décider décision bu melni moy mooy wat pendant 5 ans. ñu démissionné Pastef nag. déggo li ma la wax bo xasse bok fofa bo fa xasse bok mo xam nga nekk fa un membre de droit wala un membre affilié. ci biir association bu ñu dissoudre code des obligations civiles 5 ans yi nga xamantene ño ca top waro bok ci dara lu jëm ci organisation yi ma cité sànq. Mhm. loolu loi moko wax xam nga c'est compliqué maintenant dama leen ndax nag considérant yooyu. kon ñun nag est-ce que après suñu loi yi duñ ko xool. c'est ça le problème léegi nga bokk rek nga bokk. c'est ça le problème. ku mel ni jaay solution lewet lool. amul benn amul problème ak kenn amul problème ak kenn. nga ne ko yow mënoo bokk 5 ans léegi ancien sàcc bi nga ne ko mën nga bokk. non dafa mel ne tey. Euh, sànq rek maa ngi ciy déglu benn borom xam-xam mu di ci wax dafa mel na tey man sax damay jël beneen sens ni mu waxee dafa mel ne tey sa kër ngay yor fa nit xam nga juróo ko mu xeex rey xamuñ bi mu duggee ci kër gi ki ko rey mais yéen xam ngeen ne moom la ñee ñu porte plainte la famille yow nga bëgg a taxaw ne kooku bokkul ci famille bi non dañ koy considérer parce que mi ngi ci biir kër gi loolu mooy sew-sew bi ci ne foo mënti bokk rek yow yaa ngi ci biir kër gi même boo deful toj-toj bi. ma ne dafa manqué cohérence. dafa manqué cohérence tout à fait.